ñooñu ñu naan foog yaayu Sonko dugg ci ak jot femme yu bëgg a jëndal d'avion yaayu Ousmane Sonko bés bu ñu yëkkatee yaayu Ousmane Sonko singularisé xeex bi moom kese juratul Sonko waxtaan dëgg dëgg rek moom ma sonal man maire Fangom yow yaa ñu andil kii mu nekk ci àdduna mu ngi mel ne maire Timbo. moom mi ñu andil doomi xaram bi jiite 17 millions de sénégalais yow yaa andi koo xam ne 15 millions de sénégalais bëgg nañ ko ñun ci suñu tradition ñun sénégal ci suñu tradition boo génnee ci kon gi ñëpp sa yaay lañ ñaata maire joy pour Ousmane Sonko ñaata maire koy ñaan pour mu bàyyi grève de la faim bi yaay nag mooy wax waxu yaay de contre ma si saay wax de waxu nday ngeen wax waxu yaay dëggantaan ngeen wax nañu yóbbu yaayam pour mu dem lekk man sama yaay mënu si man dara man tey bu nekkoon maa nekk ko Ousmane Sonko sama yaay mënul si man dara ndax xam nga lan moo tax sama yaay Sénégal la juddoo man Sénégal laay xeexal kon Sénégal moo ñu gën maax sama ndey ndax fa lañ ñuy sulaat Sénégal 17 millions d'habitants 9 millions de femmes 9 millions de femmes ñaata màgget ñoo ci am bu dee 2 millions de màgget ñooñu ñëpp ay ndeyi Sonko ñaata maire yi génn ak seen bekk ñëw manifestation di ñaanal ngeen naan mën nañu woo Yaya Sonko kon yéen euh, kon yéen da ngeen foog ni Ousmane Sonko daal ndeysaan euh, xamu leen valeur u xeex se que man moment yi ñuy jooy ci Ousmane Sonko kawam gars yi foog mu bàyyi ay sécurité je vous ai averti le premier jour bi mu ne grève de la faim ma dem ma daañ ne bàyyi leen ko ci suñu réunion de crise ba parce que il a donné le franc franc bu mu joxe noonu la ñuy exploité il va laisser des séquelles c'est automatique aywa ko karaté na fi yeen ñepp karaté ma tok di ré ko football fi di passanté Djibi Ndiaye ñepp di passanté Djibi Ndiaye eh wante ba mu woré ken woru ko wor man ni fi solidarité ñaari fan rek gaay dem charger conteneur touti ma dé dem ne muyé li la la ni far ma dem consulat ñami lacrymogène mu ni muyé kon xalé Dakar yaangi dé buto bok gaay gis nga nit ñu no ñew mëna combat douze rounds di voilà Macky douze ans la def non douze rounds de boxe la boxe nañu onze rounds booy calculer si point Macky mu ngi taxaw di mën na dóorante Sonko mën na dóorante ba tey moment bi benn round la des benn round te round bi ay minutes si des ñoom ñaar du douze rounds ni Macky Sall ngi dóor gars yi ñuy daanu amul ku Macky dóorul ñu daanu mu dajeeg Sonko di dóorante ba Sonko am kiling kiling kiling nit ñi jekk woon fi Macky Sall tey ba la ko arbitre bi ñëw na noonu foog mu def nii foog mu def nii ba dem yokk doole ñëwaat tey. bëggoo ñu ko yóbbuñu ardo ñu ñu ñii ñu dem faj ba may ardo lañ dem dañ ñuy faj ardo ñaata temps lay jël xoolal làmb ji ardo buñ la ji tëj ñaata temps lay jël Balla Gaye premier combat ak Modou Lo daanul Modou lu mu fi jël ñamul te eh, mu teppee ko loolu comme yéen da ngeen bu Sonko di bu mu leen naan xaar leen nee na gàtt gàtt mairie yi nii lañ koy gagné nekkul dañuy xëy rek gagné ko combat bi parce que état la mais kenn am na sama benn laaj ma naan leen état état kenn comprendre lu may wax ci état état état État, parce que vous êtes méconnaissable de l'État. Mais ce moment mot est d'autres me répéter, parce que tout le monde connaît maintenant ce que c'est que l'État, l'État de droit, avec l'État du gâteau gâte c'est moi qui le tol. Ku tok di joy lu Ousmane Sonko lek wala da fay xaru da ngay fen. Mom mo wara am yek yegu. Man suma doon xéxal ko xamné boko pissé sax mu ubbi tank yi. su ma xiifee ñaari fan mu dëgër ma rasu ndax damay xam ne damay gagné Sonko dafay xam ne day gagné mais comme injustice lañ ko teg mu ne woon gaa yi lu mu gaaw gaaw gaaw jëlee woon na fa ñu ne takk état de siège bi jóg moom si boppa moo ne freiné Sonko évité kaw bi pas Macky Sall loolu bëgg a dagg xolu gars yi. yaa ngeen may laajte ne booy xooloo de xooloo xam xam fan laa comprendre ay bind ay kilifa sama groupe bi ay ay am na waa waa booy dooleen dooleen def loolu ndeyam xeex ay ragal ngeen <laughs> ma ree ma leen faire bii paa naa leen noq te population heure buy jóg day fekk moment bu propice bu ñu jógee dañuy jàpp waa ji jeex na te bés bu ñu jógee Macky Sall ñu mu àndal ci boppam ñoo koy yeew pas ñun ñun bu ñu xam nañ fi ñu jëm te dañ fay yegg mille et quelques prisonniers xam ngeen ñaata lañ jàppaat week-end bi seize personnes week-end bii nii bii rek man xam naa seize boo yoo xam ne dem nañ leen fekk seen kër. jappelen leen te kat nee nañ tuyau bi Touba la tojee de moment bi xoolaat tuyau bu tojee tuba ni daw ba ties dem jappi ay nit gars yi vous vous trompez ñii xeex gisagoo leen ba tay ni xex bés bu ñu ñett si Macky Sall dañ koy rendi bil deex yi dañ koy rendi ma leen gëna a kit quitte ko ñu dem élection 2027 wala 2029 on s'en fout xam nga yéen nekk di calculer ay gauche droite

kon foog ñu xam li ñu bëgg ak ak li ñu yéenee waaj ku nekk di nga xeex à mais fu ay blessé demee ba jóg di réagir ci ay combat yéen ñi wér d'accord naa seen vacances yëpp mais nit kuy fo da ngay tal la ngay foo la da ngay gis la ngay foo la ndax bu ñu tasee benn plan mu échoué. yaa ngi ne way Sonko ñu tere leen finalu Sénégal ki ma leen doon wax mafia bu gën a rëy ci presse bi ak ñoom Mamadou Ibra Kane ak ñi ñëpp si archifaux c'est le di jë Didier Boubs kii la ba Boubs si boppam moom mooy jóg ak ñoom Aba moom yi pour ne leen na xale yi bàyyi woon Sonko booy ku leen na bàyyi bàyyi woon way Sonko booy ko wayale o oh, yee eh, eh, iyaawoo oh, Sonko namm naa la Sonko namm naa la ku ñu ko tere dinañ toj soo waaw saaga bi mooy lool qu'est-ce que c'est que ça ay di buub si yow nga war a toog ne bu kenn wax tuuru Sonko parce que bo len nan isam ñu islam dañuy gis Macky Sall ma dem fay Sall fekk waaye yow yow jaay ko tokka fi Touba ci isam la ñu bokk guppi ku mbedd yi ngeen di gis Sandaga cantine rangale ñooñu c'est pas normal ci isam lañu bok ala alors de centenaire Sandaga cantine ñu nga gis sibiti ñu yépp c'est pas normal ci isam lañu nek. ñu ñëw ñëw buñ ko magasin jambour nga lal fa nday sa cantine ba paramé da ngay dam sa doore négatif

seen wér yi nii je ne crois pas gëm ma ko man def naa ba man may wér di lay lax ila laa lay wér di pare naa ci ku dul Mouhamed du ma la tudd aw ma ci kersa ay toog naan bii wér di diw la wér di tijaan wér di murit non non non non non négatif ci yàlla ñaar la zunjaat ak zinjaat loolu si dee moo juif xap yàlla ci dee la nekk phase ak mo moins ak plus la courant yeeg lampe yeeg yow sa cerveau liy dawal sa yaram yëpp yàlla ñaar ñaar la ko def ben bi ci cerveau bi ben bi ci xol bi ñu def ay démembrement lan moo tax ñu ne la deux lignes ay ray dañu parallèle non lan moo tax bu nit ki paralysé dootul dox deux lignes parallèles jub la da pare ñu ne la quand la personne est paralysée elle ne marche plus pourtant quand deux lignes sont parallèles ils ne se rencontrent jamais mais quand pourquoi la personne si elle est paralysée moins bête plus bi yàlla sàkk ngeen ni ko branché courant moins beeg plus boobu gis nga sidit yooyu nekk sa cerveau ak yooyu nekk sa xol moins beeg plus boobu bu laalantee nga paralysé parce que AVC ni muy lakkee nday beneen affaire bi la Macky Sall ñaata nit na lakk ñaata neera AVC ñaata paawa AVC actuellement si lan paralysé seen plus la Macky Sall boole ndax lan xol bu tàng ba pare yéen xale yi nga ne da ngay di dem concert pour sauver Ousmane Sonko am booyu man ci patriote laa ko ñaata at nga mu ne ma 16 ans ma xam ne doo voté su ma ko yoree dama lay yónnee ndax xam naa ne doo voté xam naa ne yow yi ñuy xeex ni gën ñu bokk nii rek mais doo voté tinu zamer sama doom laa lay jàppee damay xam da ngay tipsé bu dee benn 5000 bu mu ko yoree orange mu ne dama la koy balancer garaawul mais booy yi am ay vingt ans nii laaj leen maax ñoom ku ma dama naan va te faire foutre waatul ci terrain bi xeexal sa bopp booy boo xeexee ba pare ma kii la kii nag xale la âge bi. parce que sañ wo la yow nga kay wo muy dem di combat tay mu wo la ngay damay dem concert ko ko sey de concert da lay wax loolu xale bi nak mama bo gis nga boko rejeté mën na la bañ yàq Ousmane Sonko mën duma rejeté fofu kèn ëllëg su na xéxal dina xéx nga ñu mama bi gis nga fu ñuy rejetante rejetante bi dafa commencé diw ni diw ni dédé dama may yi bloc la ñu war def gaay fokk ñu def bloc fokk ñu def bloc fokk ñu def bloc waxkat yi foog ñu def bloc géwél yi foog ñu def bloc géwél yu passé fi foog ñu def bloc kii yu passé fi foog ñu def bloc patriote yi nag laay lancé un appel que gis naa ne patriote yi ñoo gën suudee ko waa passé te ba pare damay gis affaire yu ndaw ndax damay dem manif entre les patriotes et waa passé waa passé man mi gàddu sama guitare man man man mi gàddu sama guitare dara soxlaa mu ko seen parti fan ngeen yaatal xol yi tuuti. faut que qu'on y il faut que ça s'ouvre hein. il faut que ça s'ouvre s'ouvre. Il faut que Sonko Il idéologie systématique bi s'ouvre. bëgg a que ça ñun ci anti système ça s'ouvre. plein faut que lañ may Il passé que ça s'ouvre. dama koy dund s'ouvre. Il faut comme s'ouvre. je faut les couilles ma manifestation mon je faut les couilles même Sonko laay dugal nii sama pare je continue ma route sama guitare laa yor j'ai pas besoin de vous petit pastoral j'ai pas besoin pour être politique ngeen def benn dix ans xëyewaat ñëwaat di la nga am si nit j'ai pas besoin man beneen philosophie la am beneen objectif dama leen di pousse donc bu oto bi tàkkee bàyyi bàyyi laa leen wax cassez-vous donc su may ñëw ci combat bi wala panafricain yi bu ñu ñëw si combat bi xoola yaatal leen dënd yaatal xol yi passif ce combat là ça vous dépasse

ku taxaw saaga nday mën a la loo ci mun yokk xeet ko saagal seen nday ñoom ñëpp gars di gën saaga nday Macky di gën a financé ñun nag da ngay saaga nday waa Pastef ñooy njëkk daw ah bokkul si ñun que noonu la ñuy xeexee Pastef eh moom la ñu revenir à la raison ñoo leen mag si politique gën leen xam politique bu dul woon Sonko nii tey bu Sonko ne woon man noppi naa ma ñàkk sama nday waa Pastef yéen big deux tey bu Sonko dirigé woon waa Pastef yéen

ben boy la fi gis na oyof ma xawna talibé taalibe bi au moins am ouverture d'esprit moy boy Issa Sall député bi nek non dem moo tax démb ma ne ko damay topp si ginnaaw yaatal leen xol yi pour combattant yi ñeme dugg ya tan len xol yi pour ñu wéré ba pare am na ñoo xam weere nañ ba noppi waaw wala déet mais ko ma ubbilul est ce que dina amaat fi ci dugg ya tan len xol yi gaay ya tan len xol yi am na ñu bëgg dugg ci am na ñu bëgg xex mais danaan man li mu fi wax déedéet ñëw len moment bi ay combattant lañu soxla bu ñu amul 6 000 hommes 10 000 hommes moo ñu gënal waa Pastef li ñu lay xool ak li ñu la xoolewul on s'en fout ñoo leen ñu rejoindre rang yéen ñi ngeen a xeex bi xeex xeex bi mu jeex xeex xeex bi mooy génne Ousmane Sonko fële mu nekk yóbbu ko Casamance dem faji ko buñ ko bàyyiwul maa ngi waxaat maa ngi waxaat ma ñàkk sama nday màggal ci lu leer laa leen wax di ngeen gis loo leen mosoo gisee màggal Touba d'accord Touba moom suñu yoon nekk su mais vulganisateur yi daañu job courant ak ndox di ngeen ko soxla mu te leen internet yow nag Macky yaa ñu coupé woon internet internet bi yawit fait tout au possible ba yóbbu camion militaire yi ñu dem ravitailler Touba ak Diourbel ak yëpp ndax xam nga fi ñuy waxee les jeunes bi mooy tey la ngeen jàppale booy ci combat bi ndax ñun moom duma leen na bu ñu ngi toj li ñuy toj ñu ngi lakk li ñuy lakk tuyau yeeg yëpp day laaj ci ay transport ay passe dem toji passe dem <laughs> yàqal Macky Sall ñëw toog ñuy ñu si dara ci combat lañ nekk moom mooy ñaaw na ba noppi lu waay yàq na ko xeeb lu waay yàq rek na ko xeeb ngir yàlla la jeunesse seen fecc ak yi du ma leen nëbb de buñ leen dóori li explosion yokk acte terrorisme bi nag bu ne nag ñun nag dóor leen acte terrorisme bi nag c'est fini dem nañ état de siège balaa ñoo yegg foofu nag provoqué ko la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer xam naa lu ma wax gars beneen projet projet boobu ñu ngi tudd benn benn préparez-vous en conséquence mouvement nawetaan li ngeen ni way Sonko ni gaay ngi wax ñu ngeen ni avertir soo moytul day ñaaw te day gëna a da fay ñaaw te day gëna a ñaaw ndax Mansour fay du na ko tuba am rek day ñaaw te day gëna a ñaaw yeneen lay fóori nak ñoo dinañ ko jot duggu ci détail li lañuy def gauche droite gauche droite gauche droite c'est normal parce que man xam ngeen rek yag ci ligne bi mënu mako dama tek sama caen ni ak sama guitare yi ba paré sama nakooru xol yi waaw góor laa de devant yéen ñëpp ay góor lañ mais waaw njaboot bi moment bi moom xel bi yëpp ay jaxasoo day la ma jógee parce que li ñuy wër ñun ñëpp soxla benn affaire nii dama nekk si beneen xeex nii boo leen comprendre gars yi dama nekk si combat bu extrême boo xam ne maax waa Macky Sall la du waa du Sonko laay xeex la de mais bii pass sama bopp laay xeex la pour sauver ma nit sama bopp ndax maa fa bàyyi ñoo xam foog ma sauver leen ñoo xam sama responsabilité la lu leen mënti dal ma maay je moo tax maximum de concentration. yërmande gi gën may bëgg a woo si suuf soxlaawu ma ko concentration bi su Ousmane Sonko mii la ni ko fexe génne andi ko soor mu faju su boobaa ku ma ne gën a mas sa gauche droite lii sa doom bi wéy lii ku ma yërëm rek la sama rab bañ encore une fois je me répète ku ma yërëm la rab gën a bañ ci àdduna ndax maa ngi demal sama bopp boobu rek la sama rab bañ gaa yi gis na ñenn da ngeen foog dama ñàkk kersa ñàkkuma kersa moo tax ku ma woo noonu ma Sonko du ma la faale mënu ma la tontu. boobaa mu naan ma sa doom bi góos mënu ma la tontu parce que bañ man yooyu da nga def da nga may jooylawaat delloo si waat ma en arrière te moment bi avancé naa ba pare romb naa loolu damay xeex moment ñun Sonko génn ñu imposé ko xeex ak ngay matt jëlee ko fi si lañ nekk te ñun projet bi nous trop en avance da ngeen ban for ngeen gis ñuy for am ndax dal parce que xam nañ fi ñu toll yéen a xamagul fi ñu xam nañ fi ñu toll comme léegi on a trop de top mënatuñu génneen lépp c'est impossible ñaan rester concentré rester vigilant ngeen ñun numéro yi fakk ma koy sécuriser moo tax léegi yëpp sama numéro beulé la koy jaar pour mën ko kuma wa woo mën la yonne ko diw espion nak bu am numéro France fi nek Sénégal bu jëm wa wak yoy ba jëm man numéro fo mu munti woyé dina xam fo mo woowee pas la peine de couvrir go numéro Ousmane Sonko diko dal c' normal normal fa xiif ku xiif perte connaissance ku ñu door perfusion ci xeex la nek tay bu xeexoon mom ba sàngoo suuf ay malaka akay téru malaka àjjana ya kay téru ci combat bu garaaw la dee ci noblesse bu metti la dee ñun ñun moomaay xale Casamance ñun mbégte ñu am ak féex ci ñu Sonko tamit nii mbégte ak feex ndax kenn accompagné ko si bii baa kenn dina maa xeexli Sonko man nag yow ak ñi may seetaan ñëpp ci yem kenn woor fi li mu wooragum waaw wala déet ñun ñëpp ñu nekk suñu kër yi ñii ñu ngi vacances kon bii suñ ko moo xeexal boppam bu génnee moom moo jëm moo boppam moo xeexal boppam ñun ci biti lañ ko xeexle

coupure économique buñ ko defee mu génn coupure sociale bi Macky Sall réussir na ko ñu nag coupure économique bi la ñu war a réussir kon la jeunesse restons prêts et soyez dévoués et éveillés combat bi day am de neex naqari day am ci 06 05 59 96 00 balaa ma ko fàttewaat saa mu rëcc mi la jeunesse restez éveillés soignez ne blessés et attaquons le combat tôt ou tard day am Sonko nag moom bàyyi leen di ma woo di ma laaj ni ma ndax il va bien Basumo Basumo Mbare c'est la lutte libère et on va gagner nii laa leen fawee bëgguma kër yu bëri bëgguma tapete bu kenn tapete bu kenn kër fi doy fii mooy affaire bi bu kenn tapete bu kenn kër parce que tam saa yi booy concentré wu da ngay perturbé carrément ci live am moo tax nanguwuma ko je préfère jox booy Facebook ñu jël ko non YouTube ñu jël ko direct am na beneen booy bu koy jël chaîne les pro Sonko pour éviter fii seen kër yu bëri